waaw téere bi de fu ne nii bu dee li ñu tax a daje tey ñaari téere la benn bi mi ngi jëm ci dunduk sëñ mag bi mi ngi tudd euh, Cheikh Ahmad Bamba Abdullahi wa Xadimu Rasuli Sëriñ Tuba ni mu nekkee jaamu yàlla ak nekk liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu téere boo xam ne ay gëstu la yu wuute ñeenti gëstu yoo xam ne dañ koo defoon lu jiitu doon ci waxtaan ci ay xaaj ci dund gi njëkk muy dem ci géej gi lu aju biir géej gi ak bi nekkee gànnaar ak bi mu nekkee résidence surveillée ci Sénégal diggante ci yéen ak njaareen yooyu lañ dajale nag gën ko xóotal gën koo faram-fàcce ba génne ko ci téere boobu nga xam ne mat na juróomi téeméer yi xët moom la gaaral ni tey. waaw xam nga dañuy mottali ñun dañuy sof ci li kàngam yooyu defoon ndax kàngam yooyu li ci ëpp ku ne daa am wet goo bind ñii dañoo bind ay jaar-jaaram ñi bind ci ay karamaatam ñi bind ci xasida yi nga xam ne an wet gone daal ci lañ gën a jëme yitte ñun nag daayira bi di mbooloo moo xam ne yitte yooyu yëpp dañu bëgg boole xam ne téere bi lu tasaaroo woon ci téere yooyu mi ngi ci lu woon ci téere yooyu moom lañ boole ci kon xëy na li ko wutale yeneen yi mooy téere yi ci des su ci daa am genn wet gum gën a féete jàng wetuk kii jàng wetuk xam-xamu sëriñ bi kese ki jàng ay cosaanam kese téere bi na ñëw boole yooyu yëpp waaw kon jàpp nañ ne ngir am delluwaay boo xam ne benn lay doon gëstukat man cee dellu yooyu yëpp mu fekk ko ca dañuy gis ne amutoon ci ci jàbbi amutoon ci ci saxaab bi moo tax ñu def ko. bi muy waxee yéen ñu ngi koy français te incha allah danañ ko tekkiwaat ci anglais kon arab bi moo njëkk ndax mooy cosaan ndax sëriñ bi ñu ciy waxtaanee lim bind lépp ci arab la ko bind waaye danañ ko teg ci làkk yi nga xam ne yëpp adduna soxla ko nag dañoo bëgg mu dem fépp xam sëriñ bi. Euh, mën nañ xalaat saare bi Sénégal rek lay jëm wala ci àdduna wër nañ képp. fépp la jëm ndax fañ ko doon moo la ci limaa bari na fa lañ fa bàyyi tasaare ko ci mag bibliothèque Cheikh Mour Bassir mi bu yàggul génn na fi ak tournée bu yaatu ci Europe ak euh, ci lenn ci réew yi assi fu mu dem yóbbaale na ko fa daanaka dañoo bëgg muta tas fépp bibliothèque yu mag yëpp incha allah danañ ko fa yóbbu te tam am na yu jot dem sëriñ Mouhamadou Mountakha it gan ñi fi ñu ñëpp kuy dem dal la ci jox nga yóbbaale. ñeenti xët la euh, ñaata page la fi mu toll maanaam téere bi juróomi téeméeri xët mooy 500 pages la juróomi téeméeri xët la. dunduk sëriñ bi njëkk muy dem ci géej gi comme ay cosaanam ba nim demee ci géej gi loolu benn partie la tukki géej gi boppam la xew fu jaar yi ko sabab ci zahir ki bàttin yooyu maa ngi ci ba ñibbisi gi nekk gànnaar la xew gànnaar ak la sabab gànnaar ga lépp mu ngi ci téere bi ak nekkam ci yéen ak njaareem ba dañu ñibbisee Tuubaa ñu yokk ci nag ay mulxaqaat yenn yi ay photo la yenn yi ay seere yoo xam ne boroom xam-xam yu bari yu mag ñoo ko seere ci moom yenn yi euh, ay desiti bibliothèque bi mu amoon ci njëriñ ak xam ne téere xam yu mag mu ngi ak nag bi mu daan bind téere yi muy dellu référence yi mu daan dellu dajal nañ ko fenn yi ñi xam yëpp ñu tudd leen moom lañ am yaakaar ndax jàpp nañ ne ñi nga xam ne ñoom ñàkk xam moo taxoon ñu doon bind loolu danañ ko saafara ndax wutal nañ leen delluwaay boo xam ne mën nañ caa dellu am naa ki nga xam ne nag yeneen yéene la moom moom itam bu bindatee am na lu ne ci wet gi luy wet dina lim bind bu wuuteeg loolu ñu xam ne wérul loolu mooy njëriñu téere bi. c'est bon. Ah. ok